diwaanu Pikine contamination yay gën di yokk ci bu fajukaay yi am na agent de santé yi wàll nañu leen Younoussa Baldé dana ci dellu soit ak ñun lu mel loole itam ginnaaw bi ñu euh, waxee lu jëm rek ci euh, ay nit yoo xam ne dañu leen a mettre en quarantaine ci njabootuk daam bi ñu testé mu positif fële ci Grand Médine euh, ba léegi am na yeneen coow Alassane Baldé loolee dana ci dellu soit ak ñun dees na wax itam ci wàllu xibaar Touba ak itam Covid 19. mi kaay di yokko loola yëfi Abdoulaye Diagne la junni cas contact euh, yoo xamante ni bi euh, dal nañu nit te ñu xam fu mu bàyyeekoo docteur Moussa Seydi nee na moo ko gënal benn cas communautaire ndax danger ga te doo xam foofee fan la jaar kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci diwaanu Casamance di ngeen dégg ay kàddoom ak Abdourahmane Diallo mi ko taataan lu may loolee itam xibaaru sport dinañ ci ànd ak Baye ma ant moom yéen a kaay lañ koy ndax keppek Alaaji Ahmed Aidara. Voici Trafic waa trafic salaamaaleykum. maaleykum salaam. situation tali bi. voilà merci beaucoup Mansour jàppoon na tey jii si route nationale bi beaucoup de complications à signaler fi nga xam ne moo nekk rond point bu Seras bi moom euh, xat na ba jéggi dayoo ndax woto yi nga xam ne nii ñoo bàyyi ko du côté de Labat Fall jaaree ko bàyyi ko Guédiawaye ak tamit euh, ñu béy ñu génne Pikine ñoom ñëpp ñoo daje ci foofule ba tax na daal romb ko c'est tellement compliqué lu mooy loolu mën ngeen di progresser daal di ñëw si rond point bu Seras si jëm euh, xat na ba jéggi dayoo rawatina nag ñi nga xam ne nii ñooy bàyyi ko du côté de Cambérène lu mooy loolu aussi jaaroon nañu rond point bu Siteu foofu la jëm xat na ba jéggi dayoo ndax woto yi nga xam ne ñoo bàyyi ko di côté de euh, poste Thiaroye daal di rallier rek route Yaraax camion ak tamit citerne yi moo tax na daal ba foofu la daal xat lool buntu Pikine tamit même situation maanaam xat na moom it foog ngeen teg seen tànk tuuti laa di ngeen woowee seen progression Mansour. ci kanam leen. Zik FM. salaamaaleykum. Euh, contamination communautaire def ay dégâts quatre agents de santé ca ci fi nga xam mooy centre national hospitalier bu Thiaroye euh, daanaka yëf yi na leen fa. loole nag di gën a yaatal wopp ja ak itam danger bi nga xam ni moom la moom la wopp jooje di indi ci bérébu fajukaay yi Younoussa Baldé ginnaaw hôpital principal bu ndakaaru foo xam ne am na ay agent de santé yu ñu mettre en quarantaine hôpital psychiatrique bu caaro yi nekk ci département bu Pikine am na kaawam yu njëkk ñeel coronavirus ba ñu sukkandiku ci ñu ñu jot xibaar bi ñeenti agent la situation bi concerné ñetti ñi bokk ci service de nettoiement ak benn infirmière ñoom ñooñee ñoo am feebaru coronavirus niki lëndi bi ñu génn contamination communautaire bi nag moo jur situation gi ni ba ñu sukkandiku ba léegi ci ñi ñu jox ko xibaar bi de agent de santé yooyu de benn accompagnante maanaam ku gunge ku feebar moo leen wàll jàngaro ji moom sax xamuloon ni ndax am na feebar bi ci noone hôpital psychiatrique bu Caaroy bokk ci district sanitaire bu Mbaawo jël na ay mesures yu am solo ñu bokk ci division 3 ci hôpital boobule ñoom ñëpp dañu leen ber maanaam dañu leen mettre en quarantaine bokk na ci sax chef des soins infirmiers waaye ba léegi bañu sukkandiku ci suñuy source de contamination gi ndax ñu ngi ñuy xamal ni jamono ji tembe personnel de santé bu hôpital psychiatrique bu Thiaroye yo dañoo tiit lool Thiaroye sur Mer Younoussa Baldé Zik FM. sa fàttaliku ni biik rek lu toll ci ñeent fukki nit mettre nañu leen en quarantaine mu doon ñu dëkk ci diggante Kër Mbay Fall ak Thiaroye Azir. ginnaaw lu toll ci euh, benn bis rek euh, bi nga xam ni kilifa yi mujj na jël décision daal di mettre en quarantaine membre famille yoo xamante ni bii dañoo bokk ak jigéen gi ñu testé woon mu positif ci Grand Médine nga xam ni dañu leen a mujj évacuer ay minuit ci lu amul benn difficulté ngir daal di def boobu la opération ci euh, dandal leen ba nga xamante ni bii xëy na. naka mujj na ñëw takk seen fit jël ndogal rek daal di ber njaboot yi nga xamante ni ñoo yeewu ca Xamedine te ñu jàpp ni kenn ci ñoom dañ ko daal di testé positive lu jëm ci jàngoro bi di mbas mi Covid 19 ci diwaanu Grand Médine évacuation bu ni mel nag ñu ngi ko amal donte am na ay jafe ndax ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci kër gi ñoom nangu ñoon benn yoon rek ñu daal leen jël ci seen boobule makkaan lu ni mel ñu ngi ko daal di amal daanaka minuit autorité yi rek farlu jublu ci rek fexe ba daal leen mettre en quarantaine ñu jàpp ni li ko jiitu ci ngoon gi ay agent de santé ñoom teewoon nañ ca foofule ngir daal di désinfecté waat kër gi gannaaw bañ ko defee woon ni ki démb ca bërëb situation bu demee nag tàmbali woon na indi xel ñaar ci askan dem sax ba tàmbalee mer ndax ñoom nee ñu comprendre ñu woon taxawaayu autorité yi gannaaw bi nga xamee ni nag askan ba fa dëkkee ñu ngi leen bàyyi woon ñuy dox seeni soxla te ñu xam ni am na kenn ci ñoom nga xamante ni mu nga doon dund doomu jàngoro bi di soxna soo su nga xamante ni mu ngi dëkkoon ak ñoom xamee dina la san balde yi Zik FM. Touba euh, ne communautaire yi di màggee metti na lool loola nag mu ngi dem ba commencé askan wi di ci yeewu nag di jël seeni ay responsabilité ngir moytandiku conséquences yi mën a bàyyeekoo ci Covid 19 ak transmission communautaire ci wàll boobee nag nee nañu lañuy def mooy respecter matuwaay yi ñu jël ngir wàllu prévention muy fexe ba wopp ji bañ la dal ñu fekk ci Bawol Abdoulaye Diagne. ci Touba ni fi feebaru coronavirus bi di sampo euh, doy waar bis bu nekk muy gën a yéeme. ah moom koy wax dëgg yàlla moom doy waar loolu wax dëgg yàlla te dama nan maa xam dëkk bi moom feebar bi jóge kaa ñetti kaa boog ñu da ak fu mu nekkee le fait que mu nekk si dëkk bi rek dèjà mën naa indi jiyee. mbir mu ñu méngaleeg ñàkk a wàccoog digle waa kër docteur yi. fii Touba xam nga mooy seen problème mooy ñoom dañuy nuyoowante dañuy naanante café

junniy cas yi ñu xam seen borom fan la ñu ko jëlee moo ko gënal benn cas bu ñu xamul ki ko am fan la ko jëlee kàddu yi mi ngi koy yëkkati ci diwaanu Casamance moom professeur Seydi ñu teew teewlu ko ci micro Abdourahmane jàlloo xam nga lépp dafa dépendre tey man ma am 100 cas contact moo ma am benn cas communautaire te xam naa ne kii moo leen naa su ma leen fajee ñu wér ak bi jeex na parce que c'est contrôle mais communautaire bi xamuloo fu mu ko jëlee xamuloo fu mu wàll xamuloo. kooku moo gën a tiitlu kon du nombre de cas bi dëgg-dëgg mooy tiitlu si instant bi mooy wax mooy cas communautaire waaye nag suñu demee nag ba yegg ay 10 000 cas mu nekk contact mu nekk communauté dinay tiit parce que su bëree bëriwaay boobu yëpp ko mën a faj lu mu waree mais tey pour xaar wax tey spécifiquement nombre de cas tey tey tey particulier ci moment bi may wax li ñu war a tiit de nombre de cas bi parce que ba léegi ñu yegg fi nga xam ne euh, mënatuñ si dara mais cas communautaire yi la ñu war a tiit kon compte yeneen cas su bëree day wane liggéey bi rafet na day wane ne contact yi ñu ngi leen di testé di leen xool di leen toppatoo parce que soo amee 1000 contacts nga bàyyi leen ñu ñibbi toppatoo leen zéro ngay am mais soo leen testé ñoo ñoom plus ngay testé ñu bëri ngay am ay cas kon foofu dafa war a dal xel donc cas yu bëri yi pour l'instant dépassé wuñ ñu mën a jël en charge au contraire dafay dal xel si liggéey bu rafet bi su dépassé yéen nag loo xam ne ñun mënatuñ ko jël en foofu la ñuy tiit si loolu. mais cas communautaire moom benn rek musiba euh, professeur Moussa Seydi en tout cas cas yi bu dee junni moo gën a dal xelam bu dee benn bu communautaire waaye bu dee junni itam du gën donte yëgguñu fu Sénégal tëlee ci wàppu ja waaye ñetti fan yi ci test massif yi nga xam def nañu ko ay trois cent ki quatre cent damuy génn ci ay nombre yu positif itam ku am xel ku ne war ngaa tiit ndax ni bis bu ñu xëyee testé woon de mille wala deux mille personnes ñaata cas positif la ñuy am bu boobaa kan moo mën a taxaw ci waa Sénégal ni mucc naa ci tawat ji soixante douze heures ñu am lu mu ëpp cent personnes dëgg-dëgg tey na xel Léopold Tamba. alxames gi ministère de la santé et de l'action sociale ca ba muy joxe xayma bilan bi tukkee ci mbirum mbas mi docteur Alice Diouf siwal na ni Sénégal toll na ci juróom-ñetti cas communautaire muy loo xam ne jar naa tëral ay pexe ngir fànq mbir moomee ndax umput kenn ni ka communautaire réew yu ko jànkoonteel daanaka daj nañu lu mburu dol daj ci taal ci li waa kër docteur xamle ci cas communautaire gi da di feebar goo xam ne ne day euh, maanaam fëyi fëyi ci li nga xam ne moo di jaww ji léeg mu dugg nit te du xam fan la ko jëlee loole bu amee day gën a baral wàlle gi yokk lim gi ci anam gu jéggi dayo waaye nu mu métti métti Sénégal ci taxawaayu docteur am su askan wi nangoo seeni digle jël matuwaay yi ci war yaakaar mën naa juddu fànq gile musiba ci beneen wet gi bu ñu fàtte ne ci bisub alxames gi fanweer ak juróom-ñaari doomu Sénégal la mbas mi di Covid 19 tëral. ñu jaajëfal bu baax Léopold Tamba. démb ci ndajem conseil des ministres njiitu réew bu Sénégal sàkku na ci ministre de la santé ak euh, ñi nga xam ñu bokk ci gouvernement bi ñu def seen kéemtalaay kantin ci matuwaay yi nga xam ne wax nañu ko jël ngir daal di freiner ci bu gaaw transmission communautaire. lu mooy loolu itam ci biir réew mi yëpp ñu xool nu ñu mën a amee ay communication ak ay sensibilisation ñu jëmale ko ci askan wi ngir ñoom ñëpp xam ni seen fi bopp la ñu mën koo xeex ngir dakkal wopp ja lu mel loolu itam sàkku na ci ministre bi wax lu jëm ci wàllu transport nit ñi respecté li nga xam ni mooy euh, li ñu santaane ci mën a euh, moytandiku feebar ba di wàllu prévention takk ay masque joxante ay distance ak yu mel ndoone lu may loolee itam euh, jàpp na ko mu doon lu ñu war généraliser ba noppi itam teg ko ci yoonu ñëpp sàmmwante ak moom ndax bañ a yaatal wàllante gi ci wopp joojee di Covid 19. ci diiwaanu Mbuur ak sali dafa amoon transporteur yu dëgër bopp yu doy waar yoo xam ni dañuy jël nit ñi ci ay gox-goxaat jokk-jokkalante ci wàllu téléphone dajale leen ci biti Mbuur yab leen ci wota aw ci yoonu suuf tappi teppi bu dugg biir Ndakaaru loolee nag transport la boo xam ne ci wàllu trafic la ñu ko doon defee way tekk der yi démantelé nañu réseau boobu jàpp nañu leen préfet bu Mbuur ni daañu continuer liggéey ba ndëkk képp ku ci nekkoon des na teg loxo mi ngi tudd Mor Talla Tine ñu teewlu ko ci micro Papa Dieye am na koo xamante ni dañoo jàpp ni moom moo nekkoon le cerveau ci wàllu transport clandestin boobu tey waa police teg nañ ko loxo ak ñeneen ñu ko doon jàppale parce que dañ daan jël oto jaar ci yoonu suuf yi nit ñi ci benn bërëb ay oto ñëw fekk leen fa pour ñu dem yóbbu leen ci fi nga xamante ni moom la ñuy def mais am na liggéey bu am solo buñ ci def yóbbu la fi nga xamante ni moom la ñuy confiner. Euh, Frapp France dégage de Guy Marius Sagna jiite ko. Euh, ànd nañu képp kuy dox ku nekk ñu daal di lay euh, su euh, def dafa la test ba nga bañ a am wopp joojale war na ci tënku ki nga xam ni bi nga xam ni war nañu koo jël mel noo ne Papa Dieye fekk woon na conférence de presse bu avocat bi doon avocat wala ki nga xam ni mooy préfet ba di Mor tin ci matuwaay yi ñuy jël talaata bi weesu ci la Mbour tàmbalee jot ci dund gi nga xamee ni nguur gi moom moo koy dimbalee askan wi ci ñaari fan rek ñaar fukk ak juróom-ñeenti camion yegg si nañ ci jotagum euh, mën na ñeenti téeméer ak lu topp ci ay tot mais buñ ko xaymaa li fi war a ñëw ci ceeb rek mën na ay ñeenti junni ak genn wàll ak tuuti lu ci tegu ci wàllu ceeb liggéeyu set satal bi ñu war a def ci liste nationale unique bi tàmbali nañ ko waaye nag feeñal na ni liste yooyu dafa mat a saytu ci biir lu toll junni ak fukk ak benn ñoo xamante ni dañoo nekk ci liste yi ay yoon yu bëri yooyu dina leen signaler dindi leen am na ñeneen ñoo xamante ni war nañoo dolleeku ci ñooñu loolu la ñuy tuddee extension. gannaaw bu liggéeyu ciblage yi nga xam ne moom la ñu amee ci quartier yi wala ci village yi jeexee nag ci la ñuy dor di mën a tàmbalee joxe dund gi kon taaxirlu am na ci Pape Dieng Mbour Zik FM Papa Dieye maa ngi jégalu ci nit ñi di liire chapeau bi sànq jafe-jafe tuuti rek ci wàllu technique ñu jégalu bu baax baax a baax ci euh, trop avocat boobu ñu tudd jubluwuñ ci moom préfet bu Mbour Mor Talla la ñu ci jublu ci ndaje mi mu jiite woon ci séddale dund beeg nañ koy séddale ci boobu la département. club des investisseurs du Sénégal daal di nañuy rafetlu dogalub njiit réew bu Sénégal ci riposte bi mu bëgg ngir xeex Covid 19 wante it nag ñoom pour ñu sóobu ci xeex ba am na juróom recommandation yoo xam ne jébbal nañu ko njiitu réew bu Sénégal def ko ci ab mémorandum Fatou Abdou Ndiaye juróom-ñeent yooyu yu mu club des investisseurs woo njiitu réew mi mu fexe ba lép loo xam ne conséquence la ci wàllu koom wala dal ci entreprise ñu gën caa indi ak pexe rawatina nag joyanti goo xam ne ñoom dañu ko tënk ci ab mémorandum boo xam ne juróom-ñeenti proposition la ñu ca def te juróom-ñeenti proposition yooyu nag bokk na ci li nga xam ne moom la ñu war a fay fournisseur état bi toll ci 302 milliards waaye li nga xam ne rek moom mooy jàppale ci secteur bu économie rawatina ñi nga xam ne ñoo gën a loru ci covid 19 di wàllu ko transport wàllu ko hôtellerie ak wàllu agriculture mu tollu ci 100 milliards ak li nga xam ne mooy secteur financier bi ak mécanisme boo xam ne financement lay tax ñu mën koo am ci entreprise yi nga xam ne am nañu jafe-jafe lool ci loolu ñeel wàllu Covid 19 jëm ci rek procédure boo xam ne dina toll ci deux cent milliards waaye bor boo xam ne dafa ñeel wàllu TVA ak délai bi nga xam ne ci lañu ko war a fay ñu jàppale leen ci ba tax ñoom entreprise yi ñu mën a noy wat ci wàllu koom teg te nag lépp loo xamante ne dette fiscale la ñu daal di koy dakkal maanaam bor yi nga xam ne amal nañu ko nguur gi ci wàllu jaajëfal ngeen daan xibaar suba gi ci kàllaame ko ci barma ci Zik FM premier rajo urbaine du Sénégal fukki simila juróom-ñaar moo toftalu ci huit heures. voici trafic news. Euh, situation tali bi waa trafic. ba léegi Mansour ñu ngi sur la route nationale fi la nag ba léegi xat-xat bi moom foo ko rek wes na ko fu ñu toll nii nag ñu ngi bu Cambérène su lee de complication bu rek da ngeen ko di côté de Case bi Padoua ak tamit Pikine fokk ngeen lu yàgg yàgg laata ngeen war rond point lu mooy loolu aussi ñi xam ne ñooy wàccee di côté de péage bi foofu tamit ça ralenti tout wala sax xat na ba jég de moom it fokk ngeen patienté tout laata ngeen ci kanam a làmbaat leen. sport ñu ànd ceeg Baye Ma Anta Mboub salaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. coronavirus Liverpool Atlético de Madrid euh, lu tax ñu fay def enquête. waaw ñu bëri nag dañoo jàpp ne boobu lay jongante tax na nag euh, bii la jàngoro di coronavirus euh, a fës foofu ca Angleterre foofu ca nag ca Liverpool ki ko amal nag ki yi la kàddu mooy maire bu Liverpool di Steve Rotherham moom daal jàpp na boobu la jongante ndaxte balaa boobu sax Atalanta ak Valence ci boobu la jongante dañoo gis ne nag bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a nag tax ba jàngoro ji di coronavirus dugg foofu ci Bergame bi nga xam ne bokk na ci ville yi nga ne moom la jàngoro ji gën a laal ba tax na nag kii di bi jàpp ne nag faaw ñu amal ab enquête ci boobu lay jongante ndaxte bu ñu fàttaliku rek euh, lu tolloon ci cinquante deux mille spectateurs ñoo teewoon nag ci diggante euh, Liverpool ak Atlético de Madrid foofu ci Anfield Road lu toll ci nag euh, trois cent trois mille espagnol teewoon ci ca jamono jooju nag Liga bu espagnol. dafa waxoon ne nag ñu amal match yi euh, si huis kenn du ko teewe ngir rek bañ jàngoro ji nag law foofu ci Angleterre wala ci Espagne. Mhm. ñu wax itam ci wàllu championnat yi war a dooraat. waaw ci Allemagne lañ koy tàmbalee ñoom ñi ne nag euh, ligue bu allemande bëgg-bëggam nag mooy ñu def euh, seen kéem kattan ngir tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat yi même suñ ko amalee sax si huis clos waaye tamit euh, def lii lee di dépistage boo xam ne dina nag laal lu toll ci vingt mille ay doom aadama yi nga xam ne nag war nañu teew ci boobule ay ay jongante foofu ci Allemagne. waaye nag fu mu toll nii amagul benn décision boo xam ne nag jëlagum nañ ko di xaar ni rek gouvernement bu Angela Merkel ak région yi nga xam ne foofu la ñu war a amale jongante yi ñu yàbbi ci boobule proposition ci jamono jooju tamit fédération bu Italie moom seen bëgg-bëgg rek mooy nag ñu pousse saison bi ba ni ki fanweeri fan ci weerum juin jàpp ñaari fan ci weerum août. ci noonu nag am nañ yaakaar ni nag dinañ nag mën a tàmbaliwaat euh, championnat yi balaa boobu jeexal ko ba nag euh, football euh, bu entraînement bu Italie tamit ñu tàmbali seen entraînement ni kii ñeente fan ci weeru mai. Mhm. ñu wax léegi ci coronavirus ak décision bu UEFA. UEFA nag ni ki démb seen waxtaan gu ñu am rek mooy ñu def seen kéem kattan ba jeexal championnat yi ni ki ñetti fan ci weerum août lu jëm nag ci lig de champions bi. jàpp nañu daal euh, fii ak euh, weerum euh, août ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu nag amal final gi waaye nag balaa boobu tamit coupe bu Europa Europa League bi ni ki nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñu amal ko naam sax ni décision yooyu nag amagul nag benn boo xam ne nag dëggal nañ ko ci waaye nag seen bëgg-bëgg wa jamono toll ni mooy loolu ni ki démb nag seen réunion bi luñ ci jàpp rek mooy nag lu jëm ci euro féminin bu ñu fas yoon amal ni ki juróom-ñaari fan ci weerum jàpp benn fan ci weerum août ci atum nañ ko ba 2022 balaa boobu nag UEFA fas yéene nag jàppale bépp club bi nga xam ne nag dafa am ay jafe-jafe foofu ca Europe ndax li ko waral di jàngoro ji di coronavirus tax nag ñu ajandi lépp championnat foofu ca dugal. Mhm. Haj Mansour kon fii la ñuy ndax képp lu jëm ci wàllum tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal bàyyi ma Anta Mboup ñu xuus ci xibaar yi. CCBM automobile représentant exclusif marque Volkswagen d'origine allemande numéro un des ventes en Europe ak Great Wall numéro un des ventes en Chine moo leen di seen revue de presse. Alaaji Ahmed Aidara bismillah waaye mbas mi le ah, lan moo ci pexe le soleil yéene kaay ne en tout cas heure yi couvre-feu de waaw président Macky Sall kon nee nañ nañ leen ko maintenir du changé de huit ci guddi six heures du matin les seco yéene kaay ne te moo ni imaam ak ulema yi waaw